lu dul ànd soutenir Rokhaya ak Dior Dieye parce que Dior Dieye moom la Sokono Stress jël benn vidéom vidéo boo xam ne du data du lëf dara feeñul muy wër ne moom dafa yor vidéo Dior Dieye di ko lay laayifal def seen coalition ànd ko ak Awus Kité ànd ko ak kalifon Sall ànd ko ak Momar Ndiaye Momar sama xarit la ànd ko ak ki nga xamante si nii moom mooy ñeneen ñi nekkoon ci kaw dugg ci kaw live bi taal live bi woo Sénégal ne leen di woo da wan awrab Georgie yi te yarul awrab Georgie yi ma dugg ci biir live bi ne ko li ngeen di def ji ko góor jigéen la ñu may génneel ay vaar naan ma waaw Adamo yaa fi doon saaga Georgie mais le passé c'est le passé dama ne leen Georgie jigéen ju man góor la barki Serigne Babacar Sy Georgie ba muy xeex seen bàyyi yu jógul seen yaay yi ju seen bàjjen yi ju doogul joor Dieye jamonoy 2016 2017 la moom ak Macky Sall Dior Dieye ak Ousmane Sonko Dior Dieye ak Abdou Diouf Dior Dieye ak Ablaye Wade Dior joor ak Kaliphone Sall Dior Dieye ak Fouta Mata Tampi joor Dieye xam nga lan la ko deful indil ko yaayam rek teg ko na yaayam lii la wala ñu ne ko joor lan fekk ci kaw muy def nangam lu ne dañ na ko ci tiktok bi li ñuy yen joor Dieye ci tiktok bi ku nu koy yanoon ngay jigéen barke Serigne Babacar Sy di nga fanaanee doxat wala ngay yendoo day man munu mën a comprendre man ay góor yu ne léng toog teg benn jigéen di ko sot boobu ba tey ngeen koy sot mu dëgër fit toog di wax lu ñaaw ngeen ne yoral ngeen ko dara te tuunu ndeyam yoru ko dama ne seen coalition boobu laay boole yéen ñëpp lekk seen data yaay yow soo ko no stress amoo jom soo ko 2006 ba tey nga jaar ci gaal yi sa yaay day jaay say takkaay jaay ay silibom jaay ay istrinam ay sitee ngoosam sa yaay jaay na ay taloom makiyaasam jaay na ko garafaasam jaay na ko suba yi yàqom ba jaay silib bu bu bu mu jaam nga jaar ci gaal yi soo ko jaar Maroc jaar Libi ñu katt la Libi ay koy la accompagné jëre la libi dugal la Espagne ba nga wàccee Espagne li tubaab yi njëkk a def mooy danoo ŋaayi sa tuun gi xool ko ndax ay sax a ngi cëm déet parce que tamit ah tuun gu yàgg jëli koy foo mën a jaar mu ami sax wala ay mbóot ñu analyse ko ŋaayi sa tuun gi xool ko analyser la xam ne wéroo ñu defal la ay kayitu daf nga toog so ko 2006 ba tey sa yaay munta am dus bu mu nayee so ko 2010 ba tey sa yaay munta am dus bu mu jonkone so ko 2006 ba tey sa yaay ci ay potu waas lay day sa yaay ay si walay teg ci day ca tëgg bala demoon defari ay ay ay ay ay potu dayukaay guddi gi bu dee saw potu waas lay jënd ci ñopp teg ca dat ba di ci day 2006 ba tey soo ko looy liggéey Europe soo ko lan ngay kat ndayam di def ndayu Barcelone xoolal sa yaay këram gi ni mu mel peinture bi soko boo ko xoolee miir baa ngay jooy peinture baa ngay jooy sa néegu yaay bi mat laa yi boo ko xoolee da ngay foog ne ay kañaa ci doon fanaan sa yaay fi mu dëkk xool ko pour mu am ndox ay raakool lay samp sa goro yi di ko xëccale naan ko roofal ndox maa ngay génn wuy ma nga sakkal fee wuy yaay ma ngay génn wutal mbuus fasal fële yaa tepp sa data yaay xam nga ne toroxal nga sa yaay soko soko sa néegu yaay bi bu ma ko amoon guna élevage laa koy def dugal fa ay cuuj ñuy tojtal ma koy jël di jaay parce que rus naa faa dëkkal sama yaay yaa daqaar sa ndey tàppate leen écran bi tey maye kër yi so go no stress yaa lekk sa data ndey xam nga joor jeey la gën suba gën la ngoon joor jeey boo yoree awraam kattal ndeyam ci internet bi nit ñi di gis <coughs> joor man ak mooma yem du ragal joor ku joor yoroon lëfam fii muy man di keneen joor ñame gën génn wotal la ko peñeen la ko mu liis tental la ko taalaan laayi fam wane ko ni mi ngi nii fang senegal di gis kii gis na lu ne mais ci dëgg rek pas ay sos ak ay fen dama ne Sokono SRS dimbali sa yaay Malick Diop nga tudd tuddoo Sokono SRS Malick Diop dëkk sa yaraax ku la xam ne kaw kaw nga sa yaay ñaaw na ñuul na sa nopp yaay yi comme nopp golo sa yaay tey jii bu demoon parc an golo yi dañ koy xëccoo ak ak ak bukk yi parce que dañu yaakaar ne ci ñoom la bokk buy dugg parc an du ñibbisi yóbbu ko fa boo ko weddee sa yaay bu duggee barkaan gone yi duñ ko bàyyi mu dem ndax bokkam yaa koy téye te ñoom lay des kenn xamul lu muy nurool soko yaa toj sa lëfal ndey ngeen na da ngeen di def seen coalisation ànd xeex joor jeey ak roqaya maa ngi ñëw ci roqaya ana roqaya borom Allemagne roqaya borom Allemagne mayal leen ma ko ay kër xale bu rafet bi doo emprunté benn jeeg doo wuti wallu roqoyee doo yuuxu naan kay leen dimbali ma roqoyee Jessica la joteel Jessica dem jënd ñoom Sokono SRS ñoom Awus Kiti ñoom Kalifon Sall ñu koy laayifal di ko xas ak di def ay kalaa ku la ci dépassé benn moo ma lekk data ndayam roqoyee nii damay saaf data yaay man gëj naa poñ sa lëf man dama namm pas sa lëf par sa na carnet macinato bu lëf xam ngeen ko fekk data yaayu Sokono SS opéré ndeyam jël data bi dugal ko ci machine yi moom moo koy riijal defal ma ko carni machinaato ay yàpp yu ndaw yuy wadd la ma deree sa ndeyam taal olio bi teg ci óol dama koo gëj a lekk pas sa lëf ku bañ ma pas sa lëf sa data ndey dugal ci roqo ya roqo ya defu leen dara jotewul ak yéen dara Jessica bu dee amoo fit mënoo àngo ay tooñ bul dugg yow buñ la yuuxoo nga jooy bun la yuuxoo nga njaari baat ñett ay waay adama dimbali ma commencé ti nan parce que tamit roqaya solal la moo lool moom kont bu nu ubbi fa gisee kenn roqaya la moo yónni ñoom pupet roqaya yónni mañankese compte foo bi moom la sonal na ma te man defuma ko dara soo ma waree dimbali ci roqaya daal nga dimbali ma ci ma ne la jësi kaa yemal waxoon naa la ko jësi jësi nee naa la amoo fit ba pare di tooñ léegi nag ngeen dem ci ñoom Sokono SRS dem ci ñoom awuskiti dem ci ñoom Kalifon Sàllo ngangoor googu ñu ne dañ lay saagale Roqaya parce que ñoo tooñ Roqaya Roqaya defu leen dara xamul kan mooy awuskiti lijjantiwul data yaayam lijjantiwul lëfal ndayam yoonam newul ci moom xamul ku koy lijjanti xamul sax fu mu ngeen daal mu saaga ko ndey parce que dafa jote ka loolu ngeen fi def démb seen live ngeen dugg ci Fouta Ndiaye tampi ne da ngeen di def coalition saaga maman vulgaire parce que maam Ndiaye Savon message na Jessica Jessica message Soko ne ko bàyyil mu sedd ma maman vulgaire a koy tooñ ngeen ne da ngeen koy saaga ku ci saaga maman vulgaire ma katt sa data yaay maman vulgaire ak maam Ndiaye Savon ba ni ànd groupe yu njëkkee la. man groupe ba maa nekkoon ci xamal leen lu leen kenn xamalul xam naa seen démb xam seen tey moo tax seen patron moom du génn ba wax ak man mas génne gis maam Ndiaye sama fu muy taxaw naan day dagg seet ak aada que man la boos tey néegéen moom na ma man xam naa ko xam naa ma waa vulgaire moom xam na ma dama ne la ku ko laal ma sa data day parce que maman vulgaire jotee lu ngeen dara pourquoi ngeen di génne di ko saaga parce que daa joteeg maam Ndiaye Savon ngeen ne da ngeen koy saaga daal ci nii parce que dañ leen ko wax ku ko ci saaga ma lekk sa data yaay dama ne ku ci laal mama vulgaire laal roqaya joor jey ma katt sa man maa leen ko xamat boos day dégg di lan ngeen koy saaga fu ngeen teg jël mama vulgaire di ko saaga pour lan pour benn maam Ndiaye Savon fu ngeen ko teg dégg naa leen ngeen ne da koy commencé saaga parce que dafa laal maam Ndiaye Savon jësikaale leen message ku ko ci laal ma doxat sa nopp ndey fu dën sa taatu yaay ngay sa data ndey ba mu yaatu jël écran plat bi rof ko ñu fay seetaan coupe d'Afrique bi match si yëpp seen biir data yaay lañ koy seetaane na ko ci kenn wax dara dama ne la léegi association dooleel jigéen ñi moom la ñuy def ku ci laal roqaya góor gu toog di kalaa jël ay jigéen taf leen di saaga ma lekk sa data yaay man maa ko doon def te loolu bàyyi naa maa daan jël jigéen ñi di leen taf di wane seen data yi naan leen minuit pile ñëw leen 22h ku ne xam na ne Adama saasa na ndax may daal jàmm keneen ku ko fi def ku dul man ma lekk sa data yaay ku fi jël ay jigéen taf ko di leen saaga ma toj sa cottu ndey association xeex dooleel jigéen ñi ko fi wax jigéen no sa ko sudul noonu ñu génn rax sa data jigéen ñëpp nag ndax am na ñoo xam ne dañuy tooñ am na ñoo xam ne moom tekkiwun sarab dayam mais ñi tekki dara ñi ku leen taf wax leen lu leen war tax ñu lekk seen lafal day roqee nit ku baax la ku gëm boppam la cagatuwul taxawaaluwul doxul ba te seen yi poos fekk ñu ko mu ànd ki góor fekk ñu ko nag mu ànd ki roqee xam nga lu ma neex ci yow fekk ñu la yow nga ànd ki góor ñu góor ñi di live naan moo fa ñëwoon heure bii heure bii la fa dugg fanaan nan ci lal néeg bi nii la mel jot nan faa naan ban fa naanee nii la demee après ñu ànd dem baali ji jóge foofa dem fee kenn du la ko nettalil araam waxuma laa nga am jëkkër nag dem seeti ay góor tëdd fa man laa man laa kaa di la dugal ci internet bi kenn mënu la ko nettalil koo joteel moo tooñ dama bëgg ngeen xam ne Sokono SRS awuskite ñeneen ñi ñoom ñoo toñ Rokhaya parce que ñoo koy laayi fal di ko saaga parce que Jessica moo leen ko sant moo tax ñu di ko def teguñu ko fenn amul logique tooñu leen jotewul ak ñoom dara Dior Dieye jotewul ak ñoom dara Dior Dieye li ko soko meree nee na Sokono SRS nee na moom dafa taf doomam man ma taf doomu Dior Dieye Dior Dieye baal ma te moom baalu ko loolu la ko meree parce que bokkuñu mën ak yow man du ma jàpp mer man chaque jour man ak Dior Dieye dañuy wax message même man daan xuloo man loo ma def rek dama koy fàtte après ju juboo bokk ndey baay mais doomu xaram nga topp ci Dior Dieye di fen kat sa ndey sa yaay awus kiti moom gaay rus naa wax ci moom caga baay bi kat naa data yaayam ba bàppa ji génn ne amul ta xarum tabaski yaay ji moom lan bett ak dibiteri mu katt ko ba jël gerasu nag gi roof ko ci lëf li papam bett leen fasa ko kooku amuma lu may wax ci moom caga bu tekkiwul data ndeyam caga Dubaay ci commentaire yi mu fees dell commentaire yi laa bëgg a gis awus caga Dubaay commentaire yi awus kiti caga Dubaay moom laa bëgg di gis sama yaram mën a tàng caga Dubaay ci commentaire yi na fees dell très bien merci beaucoup waay yéen a mën a bind awus dibi waaye jaaraama waay barki ras waay maa leen bëgg waay caga Dubaay bu tekkiwul data ndayam nekk ci Ousmane Sonko Ousmane Sonko moom awus boo ko waxatee benn baat man maay xëddee sa lëfal nday eh wuyu leen ma yéen ñi bokk ak Ousmane Sonko dama bëgg nag li may wax yéen dégg ko Macky Sall laa ama dubalaa Ba bëgg de moom laay jàppale mais awus kiti baat bu mu waxatee Ousmane Sonko dinaa génn peinture data ndayam génnee yaayam génnee papam tafaat leen dëgg ndayam Ousmane Sonko boo ko waxatee benn baat ma lekk sa data yaay nii waaw yen ñi ànd ak Ousmane Sonko bu leen waxatee awus kiti dara toog leen di ma déglu man boos day néegri maa fi kattoon ndayam ba Sénégal kontaan maay ñëwaat tojaan lëfal ndayam ba réew mi bëgg maa ko wax awus caga du ci commentaire yi mu gaaw awus caga Dubaay kenn nawloowu ko kenn nawloowu ko ministre yi faalewun ko président xamu ko madame na maire xamu ko kenn xamu ko kenn xamu ko mooy forcer boppam bëgg dugg APR rek kenn woowu ko di forcer boppam di wax ci Amadou Ba di forcer boppam di wax ci makki Sall te ku ne xam ne ne man lu ma mënul ci APR ñoom mënuñu ko man laa la wax de man Adamo barki Serigne Babacar Si man Adamo lu ma mënul ci APR man koo wax ñu dégg ma awus kiti mënu koo wax amul ku ko nawloo amul kuy wax ak moom amul kuy téléphoné ak moom ku ne xam ne ne dulkat la caga bu retraité la Sénégal la nekkoon di théâtre ñu di def série canapé ñu koy katt gauche di ko katt duwaat fu ne lañ ko katt awuskati katt nañ ko ci tuun katt ko ci lëf katt ko ci poqutaan katt ko ci bakkat katt ko ci nopp katt ko ci pooj katt ko ci faar katt ko ci fàmb amul fu koy duggul ci moom xool leen mbàq yaram yi ni mu mel xool leen taat yi ni mu tàcc fu ne la jël ay koy caga bu katt data ndayam la yow yow roqee dalaa nawloo roqee nekkul duwaay di yaatal gimiñ ginaar yi di day ci taat yi di ko may dara déedéet roqee warul di jaay boppam roqee warul di taxawaalu awus kiti demal dimbali sa yaay sa yaay ba ko fi joor jey euh, tëkkoo semaine semaine jàngale jiwul ndeysaan dama ko yërëm parce que yaakaar na ni joor da koy lekk wala da koy rey yéen gàngoor googu yépp mën naa leen a boole xar seen data nday du wéyal ma galax ndiku bu ngeen xoolee rek xam ne pom du new yéen a ngi doon live ta fajar ba tey di wax ci benn roqeya wala joor jeey ci 2000 personnes man avant may commencé live bi egg naa 4000 te su parewul gars yi fii la ñuy toog xanaa ma pare barki alxuraanu karimi pom du new ku ci laalati nit ma lekk sa data nday ma vulgaire bu ngeen ko saagaa ngir maam Njaay Savon ma kat seen nday lekk seen data yaay doxot seen nopp ndey ngeen laal joor jeey ma fuddan seen taatu ndey ngeen laal ngeen laal ngeen laal roqe ya ma dama dagg seen dambalu baay def ko sarbo si sa jël seen kooyu baay def ko raakolu si saa seen yaay yépp di ko kat te bu boobaa raakol gi yéen a koy manq muy seen koyu pàpp léegi nag damay jël ñoom joor jeey jël gars yi ñu débat mais bala ma jël dama war a wax ci oustaz Modou Fall